Calcet.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.sénégal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple. cher internaute Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñu ngi fi di amal seen émission bi max lamb maximum de lamb chaque lundi ñuy daal di am suñu invité tey di Abdou Bakhoum manager Ama Baldé ñu nuyu la per yaa ngi si jàmm. waaw jërëjëf soxna si maa ngi lay nuyu bu baax soxna Aïssa maa ngi nuyu Max ba di sama xarit sama doomi ndey. Euh, ci invitation bi nga xam ne moom. moom ngeen ma invité tey ci télé seen télévision bi mën naa ne télévision parce que euh, site la boo xam ne bi àdduna yëpp a ngi ko seetaan mm-hmm. di ñaan na sama borom yokk leen ba mu kawe lool daal ba fépp foo xam ne fii rek gars yi dañ fay met émettre yàlla yóbbu leen fa bu baax a baax ba mu nekk télévision bu mag bu àdduna di seetaan. Père Max ñu ngi lay nuyoo. waa di kontaan rek euh, laal yaa ci bokkaat ak yow plateau li ma naan nañ la lool. Mm-hmm. Euh, gars yi daan ni ñu la doon jàmbat di la laaj fu ne. kon ñàkk laa teewlu wóoru mais di nuyu nag suma xarit bi ab Abdou Bakhoum nga xam ne moom euh, sama xarit la moom suñ dee werante sax ca mbër ya wala ca làmb ja dañ naan ku ci dugg des ci de waaw moom <laughs> suma xarit la léeg-léeg mu romb sànni ma ñu daw songoo léeg-léeg ma romb baax na ko noonu naa la may fay ab seet ñu ak kafre mm-hmm. moom suma xarit la boo gisee mu demoon noonu nag dafa naturel moom dafa baax moom bokkut ak ñi nga xamante ne nii da ngay teew rafet dëddu ñaaw moom lu mu la wax rek moo ne ci moom nit ku mel noonu nag man dama lay ñeme. suma xarit la bëri lu ñuy pelloo fi mu ne sama écrit ak écritam dañuy rivaliser ci wowuñ sax mbëri dañuy bëre fu ñu dajee dër bi la waaye duñ dugg ci sama diggante moom moom suñu ñaari mbër dañuy bëre ma ma ma lëngoog moom ñu dem fee di waxtaan suñu waxtaan <laughs> waaw mbëri kenn du ci ñemee dugal sa kàddu ndax la ma digg ak moom moo leen jiitu ñoom <laughs> booba ñoom bëreeguñu booba ñoom bëreeguñu xamee quatre-vingt-huit campagne quatre-vingt-huit suñ Thiès ja ñu ànd ak Ablaye Makhtar Diop mouvement J Thiès J Croix avec Abdou on gagne ah. moo tax am euh, sama waay ji dund nañ lu yaatoo yaatu. macha allah kon moo lay wane daal suma xarit lañ dalal tal nag. tey waaw suma xarit lañ dalal Père Max ñu yi fi amoon démb. waaw xam nga looloo fi xewoon jàmm moo ubbi diggante Pape Ndoye ak Abou Niasse ñu bëre combat bu neex laa mu jafees tel boo sànnee mbàtt mu tàkk xam nga mbëri ku daan tem. Mhm. ku daan dem teewul stade bi daa fees del mhm. te nee woon dañ ne woon Assane Ndiaye mooy roi wu. Ah, moo moo moom Iba Mar waaye mooy yegsee mu abal ma euh, mais am na fa sax lu ñu fay déplorer ndax dañ ne parrain bi nangu na drapeau bi ba promotion bi daw mais jour ba ñëwul gis naa ñu koy wax ci micro yi bu dee noonu la demee nag yooyu rafetul euh, mais Jackson moom kii mais moom xaarutoon loolu làmb ja fees na dell xale yu bëri nañ ci fulla bëri nañ ci fayda Pape Ndoye moo daan ñu ngi koy félicité di encouragé amu ñaase mm-hmm. làmb moo tëddee noonu boo waree daanu cuuna ngay doon kon ñu ngi koy félicité di encouragé euh, ki daanu euh, waaye ci arène nationale it professeur euh, Mané euh, moo fa daan saa Ndiambour ah. te boobu it dégg naa arène ba fees na dell kon moo lay wan ne làmb dafa def ay jéego léeg-léeg Iba Mar day tëgg arène nationale tëgg tëggee tëgg te yëpp ay fees dell mm-hmm. loolu dañ koy rafetlu mais beneen bi may wax rek mbëri gën a defaraat seen toogaay ndax accompagnant yi léeg-léeg ñu yàqal leen kuy sotti gàllaaj suñ leen joxeel ñaar nga ne juróom ay toog ne ci yor ay gàllaaj di xëpp jëmale bu kenn xamul da ngay xëpp nit ba mu toog ëmb téeméeri biteel ñu daan la affaire bi du ci ay xëppoo gàllaaj lii daan ci yow lay ne yow muy bëri si la gàllaaj yi da lay complété rek mais lii daan ci yow lay ne ay biteel et mbër xëppoo cent biteel sa yaram sedd sa deret sedd nga dem bëri ji baaxul xale yi nañ bàyyi yooyu ñuy def dañuy yàqal ñi ñuy àndal rek te mbëri ñooy leen bàyyi ak seen bopp baaxum mbër da daan ñëw gàddu ñetti biteel ànd kenn ku koy sottil sottee ko ne leen ngeen toog mais yow ñi lay sotti gàllaaj sax ñuy ëpp cër say kot si ci yow ndax gëm gàllaaj loolu dafa yàq sax làmb ci waaw d'accord père lan ngay wax ci combat boobu amoon diggante Pape Ndoye ak Abdou Ndiassé waaw Abdou Ndiassé combat ak Pape Ndoye day combat boo xam ne bi Abdou Ndiassé dafa yéexal liir combat bi hmm. euh, parce que bi nga xamee ne euh, ñoom ñaar daje nañu da ngay gis ne abu Ndiasse moo ko dominé ci xeex départ bi mais euh, ci biir combat bi da ngay gis ne sax bi Abou Ndiasse tiché ki nga mel ki nga xam ne ki mooy Pam Doy protestant bi dafa wàdd arbitre bi soufflé abu Ndiasse déplacé wu foofu it déplacé bi bu muy déplacé dafa war a jàngat adversaire bi ba pare bi ñu bi ko bi ko estafam wooye moom Pam Doy danga war a fileeru ci li nga xam ne lii moom la ko lan la ko lan la ko gars yi war a wax ak man fan laa jaar ak moom ba ñu tàggaloo ba ar ba ba process am daam wadd lan lañ ko war a wax moom wala bu ñëwee position ba lan lay war a def su taxawee sa kanam bu aussitôt rek da nga war a xam kii lan na war a am. Mm-hmm. day réactionné wala moom day taxawaat na mu defoon lay defaat mais da ngay gis ne da ko sëkkatal bu Ndiassé au lieu que mu fetal ci kawam fetalu ci kawam dafa dafa dafa dellu gën tuuti may ko waa ji yokk ko ci xeex boobu nag lañuy xeex ci biir xeex xeexu bu kawe yàlla dogal abu njaase mayee flan mayee ay tànk ñu song ko vraiment yeggu ko fu sori balaa defaru fekk yàlla dogal ki nga xam ne kii mooy pam Ndoye jekk-jekk boo xam ne bii pour mu rëcc foofu day jafe loolu war a sud bi d'accord ñu gis ne aussi démb ay mbëru sénégalais demoon ci MMA bi di Pika ak 2 Giga mhm. ñu amaat défaite ci MMA bi ñu gis ni tout le temps fan yi tendance yu bëri na mbër yu fay dem ban jàngat nga ci am yow. bon man man moom euh, euh, ci wàll wi nga xam ne moom la ñuy def man euh, ci wàllu MMA bi pour bu ma sañoon daal dañu koy jàng ba mokkal ko doo ko dem sinon dañ ci jël yoo xam ne yi ci ci ci ci ci combat yi ay ay kii yoo xam ne mën naa yàq seen carrière ndax tubaab yi dañoo jàng africain yi ba mu mokkal ko. la pro mooy africain yi njëkk dem MMA dañu faa gañe mais léegi li tax mëntuñoo gañe mooy lan liñ lay njëkk a wan mooy ku mel ni Bombardier gaañ bi nga xam ne bii moo ko gañee da ko dóor tànk dóoraat ko tànk mën ta fayee ku xañ na door tànk bi parce que kee mën na gën a déplacé wu pour door tànk est-ce que Bombardier mën na door tànk mais dañuy dóor tànk mais dañuy dóor kurshenu kurshenu nag buñ la koy dóor te fekk kolewu euh, leen du dal da ngeen di taqaloo ko ñu dóor la tànk wala ngeen korosate ci kaw ñu dóor la kurtenu dóoraat la kurtenu pour wàññi la léegi nag bu fekkee ne yow jànguloo karaté jàngoo judo jàngoo karse jàngoo kung fu li nga xam ne nii mooy self défense bi nga war a am ci sa yaram ah lutte gréco-romaine parce que lutte gréco-romaine da ngay gis ci ñun bi ñu ci tolloo di entraîné ñun Pape Diop mbër dafa nekkoon koo xam ne ki champion d'Afrique la woon ci wàllu woowu daanay dem entraînement bu kenn taxaw na ñëpp tëdd ñëpp ñëpp toog ci suuf ñu koy entraîner pour ëllëg ndax boobu jàpp nañ ne boobu ku mel ni Mbàkke baa nga ca ak ñeneen ak ñeneen di defi lit gréco-romaine te lit gréco-romaine dañ lay maîtriser nag ba nga tëdd mm-hmm. loolu nag ci wàllu woowu ñun bi ñu ko boo jaaru foofu xamoo loolu jëkki jékki rek ñu yóbbu la vraiment day nekk combat ay combat yoo xam ne yi mën na métti ci ñoom bu baax a baax te euh, attention ku yi ñuy jël foofu noonu jàng yi leen di jàng maîtriser mafia bii doo ci seen biir tubaab yi mën nañ la doppe sax doo ko xam mën nañ la def metti loxo yi ngay lekk lekk yi ngay lekk yére yi ngay sol dal yi ngay sol sax ba ci dàll bi loolu mën nañ laa nga nekk fa nii rek mais doo da nga présentement di nga fa nekk nii mais la preuve mooy gis nga ko booy bi ñu ci mujj a gagné booy bu njool bi. kóol kóol waaye da koo touché mu mbay mu pakkete ko daan ko ba pare war ko toog ci kawam maîtriser ko gagné ko même pas deux minutes te loolu loolu sénégalais bee ko war a man normalement bu fekkee da laa jël fëkk la kóol ah, man xaw ma ci mën a bëri ma à cent pour cent mhm. waaye ni ñu ko fëkkee normalement war nga mën a de benn réaction ci sa biir tànk ba nga xam ne même bu fekkee ne yaa ngi dem doo plat mhm. mën nañ laa daan nag ndax fii mën nañ laa daan mais am na mbër yoo xam ne seen ginnaaw laa suuf mhm. mais bu ñu la pakkatee mën ngaa ñëw mais boo ñëw doo daanoo jaaxaanaay normalement wet ngay bëgg def pour jëkkanteek moom leneen mais moom dafa ñëw palaa waa ji war ci ko touché ko touché waat ko la ñu jeexal at bi daw ñëw yaa ngi dégg match léegi daw ñëw dox seen diggante arrêté complètement li nga xam ne bi mooy combat bi muy lu metti loo xam ne li xale yi bëgg naa daal balañ ciy dem daal euh, ñu jàng ko daal wala ñu am ci entraîneur yi leen di entraîner fii bu baax a baax bala ñuy dem parce que itam mën ci jële loo xam ne lii day yàq seen carrière fii yàq seen carrière fële mm-hmm. ñu yegg fii dootuñu yegg loolu naa ña ña mm-hmm. loolu mën naa ñàkk daal père nga revenir ci décision bi ñu dégg presse bi di ko wax fa ni mooy CNG nee na ku amati contrat du dem mën a dem fële ca MMA bi ñu gis manageru rëg-rëg bi génn aussi waaw xam nga ñoom euh, da ci am ñoo xamante dañuy gis revue de rek xam nga la une da koy résumé nii rek ci mm-hmm. wolof mu jàll ñu bëri dañ ne CNG tere na MMA bi mooy leen noo demeewul noonu dañu mbër mu ne sous contrat du ñu nangu nga signé nga dem defi MMA avant ngay bëri avant ngay tàggoog sa contrat bi te cumul de contrat sax dañ koy tere fii xam nga Balla Gaye dañ ne yor na ñetti boo ma jëlee ñaari avance mais yeneen ñaari avance yi ñoo promoteur ba la mais CNG bu dul galaa bu ñu organiser nga ànd ak ci CNG nga jël réglement yëpp yóbbu fa ñoo xam ne nii lay demee ndax ñoom dañ ciy jàpp sax nag. cumul de contrat dañ koy tere. danañu bañ nag xam nga li dal ci am na blessure yoo xam ne boo ko amoon wala toog ay weer wala. waratoo bëree wala waratoo bëree. promoteur bi day perte. léegi nag pour protéger promoteur bi ñu ne boo nekkatee sous contrat ñu signé ko au niveau du CNG mu mu officiel doo signé benn contrat MMA. lu dul nga tàggoog moom loolu daal mooy léegi moom la CNG wax te loolu xel nangu na ko beneen bi nag gis nañ ne ku ci mel ni euh, ménager rëg-rëg bi moom nee na am na nuñ ko koy imposer da koy jaral mu bàyyi bërëb bi dem defi MMA ndax nee na report combat bi doxoon ci diggante rëg-rëg ak guy gi nee perte na ci loolu ma deux cent cinquante millions te man li ma jaaxal gars yi dañ ne amaguñ xaalis même xowaat mi koy def nee na bala ngaa am xaalis ci MMA da am benn niveau boo yegg mi naan première division deuxième division nangam noonu lay demee nee na foog nga dem ci ba àgg ci benn niveau bi pour doog a mën a am xaalis kon nag nan la ci mën a perte deux cent cinquante million xam naa ñi ëpp xam-xam ci montant bi ñu leen di fay ñoom dinañ mën a leeral loolu mais li ma jaaxal rek suñ mbëri fii di ko def koo wax day wax xaalis yóbbuwuma fa man nitu defi laa kon moo la yoon ne benn xaalis bi ñuy wax amagu amagu ci yàlla nañ ci am ay milliards nag ndax suñuy doom lañ mais nag nañ sóoraale seen santé ñu gën a jàng ba gën a doon ay professionnels ndax seen tur rek lañ leen di jox ñu mel noonu fii ay daanaan mais fee ay lañ <coughs> parce que mënoo xëy rek doon ci loo maîtriser wul kon dañ leen di kaar rek ñu gën a yokk seen jàng ndax ay xale lañ buñ ko jàngee danañ ko man mais daal ñu gën a xam ne bëri na ay risques ñu sóoraale ko bu ñu dee dem di def MMA bi donc ci bokk ci club yi di ko jàng comme ni ko suñu fils di defee muy Modou Anta bi ne ci Brésil nga xam ne mi ngi ñuy bàyyi xel émission bi moom du ko tardé nee na bu toogee ci saal bi li ñu wax ci wolof moom da leen koy tekkil te nee ma li ngeen wax ci MMA dafa mel ni dangeen koo pratiquer mhm. may leen sport nag sport la rek mhm. xëy na dana ci am yoodul xam yenn règlement yi mais di nga xam lu jaadu ak lu jaadu waaw loolu la ñu desandi si yow Père ñu amal analyse bi nga xamante ni moo war a am combat boobu le 5 décembre diggante Papa Sow ak muy combat bu yàgg lool am na deux reports benn bi 18 jour moo ci desoon bi ci des mu des ci dans la semaine ci biir semaine bi desul ay 5 jours 6. Siteu def lépp ba def open press ñu amatul mu nangu ko euh, mu métti lool nag. mais teewul mu continuer ay entraînement am ànd ak i mbokkam li may déplorer rek mooy ba léegi état bi ñu ngi wax mais ba léegi déglu wuñ te mu métti woon na xam nga tax bi biñ dajalee Pa du Fall mooy rapport bu mujj bi ñu woo Pa Abdou woo Gaston woo Thialis gouverneur wax ak ñoom ñu génnee ne nangu nañ ndax nit ñaa ngi dee hôpital yaa ngi fees mhm. ànd nañ ci mais dañ leen a jaxase sax ak bëri ak seen rakki promoteurs yi ndax daa am ñu ne ah ñu woo ñu woo ñoom ñu bañ ñu woo leen rek ñu ne ko est-ce que joxuñu leen dara te joxuñu leen dara ñoom ne joxuñu leen dara mais ay sénégalais lañ suñ njaboot ak suñu waa réew ñii duñ na ci lalu hôpital yi ñii di dee ñuy tëgg làmp mais loolu ñëpp la wala laal am na secteur yoo xam ne dañ leen dédommagé làmb joxuñu leen dara lu dul benn vingt et un boo xamante ne nii promoteurs yi lañ ko jox bàyyi mbër yi nga xam ne ñoom la gën a impacté promoteur dañ ko puusal xaalisam mais pertul dina fayeeku waaw mais la lutteur la ko joxoon da ko financé nga ne ko da bëri bërewaat te bëri waatul ñu suspendre la ndax cas de force majeure la mooy kaawu mobile bi mu bëri bërewaatul dafa dañ ko suspendre mm-hmm. d'accord contre ma mais nañ nañ leen dédommagé ndax foo toog sax di fa bay lu yàgg te moomoo ko mais dañ la ko jox rek nga fay ba buñ lay toxal dañ lay jox dara. mais làmb man yu mel noonu tax ma naan état bëggul làmb ñu ne damaa contre man contre ma mais dama gisul benn jéego. buñ def ci làmb ba nga xam ne lii mën nañ bëgg nañ ko. Mhm. wàññi nañ location stade yi gërëm nañ leen sant nañ leen. stade loo euh, côté service d'ordre. Mhm. stade bi fayatoo dara mais 500000 la ñu doon fay. football du fay sax bu 100000 francs du ko weesu. Mhm. di nga Ibamar li fa gala de lutte yi amul moo taxoon projecteur lamp yëpp burle ndax football la fay def du fay mais ji nga bu gala yi commencé amaatee léegi ñu defar projecteur yëpp mu leer nañ kon lamb dafa am budget bu ne ci ginnaaw dafa am lu mu dafa am koom mu ci ne état ko gën a bàyyi xel gën koo respecté Siteu Papa Sow nag combat boo xamante ne nii ñoom ñaar kenn ku ci ne kii dafa am écrit bu bees jóge Fass bii di premier sorteem muy Papa Sow mu jóge ci defeet digganteem ak Ama balde ñu ne ko ndam rek la ñu bëgg pour équilibre bi nga sos gën a ami tànk yow it nga relance sa carrière Siteu dóor sos mu daanu war a bëre guy gi ñu doon dox ko maam ak Ama coow li bëri lool te Ama gis nga ni mu def Papa Sow kon Siteu su ko Papa Sow daanee dañu ko dangaa sob mais Ama du sa morom gis nga ni Ama def Papa bëriwul ak moom cinq minutes kon loolu beneen défi la mu jóge ci guy gi ñu ne ko nag nanguwuñ guy gi daan la Papa Sow daan la yow da ngaa war a doon roi des arènes xëccoo ko comme ñëpp Abdou Bakhoum wax na ko léegi ndax nee na moom bëtam ma ngi ko teg ci ñooñu wax na dëgg làmb saa woo daanee sa xel da koy teg ci ñi la fare kaw mhm. muy combat boo xamante ne nii la cinq décembre dañu gërëm pa Abdou Fall moom it métti na lool mu toog xaar ko fa mais dañ ko ci ñaanal réussite di ko ci ñaa ndam mhm. mais daal combat kun ci ne yaa man dañu lay nax combat la boo xam ne ñaari mbëri fonk nañ ko te seen écurie wala école de lutte ñu ngi ne sa ginnaaw di la pousser vers la victoire mm-hmm. le 5 décembre daal liñ naan cin luy baax la doo am ruq bu sedd combat bu métti lay doon Père Bakhoum ñu ñëw ci date boobu 5 décembre diggante Siteu ak Papa Sow ban analyse nga ci am yow waaye ñoom ñaar nag euh, da ay mbër yoo xam ne yi ñoom ñaar yëpp ay mbër défi lañu ndax ku mel ni Siteu Euh, actuellement nii bu dee làmb la moom moo avancé mel ni Papa Sow bu dee ci làmb la boo amee boo xalaat ba dem ba bëreeg Modou Lo bëreeg Balla Gaye da am arrière kon ci làmb te làmb nag tànki kanam la baaxoo boo demee ba fee nga départ rek da ngay dellu gën a départ la preuve mooy ci combat yi fi jaar yëpp euh, kii di Siteu Euh, dangay gis ne day ñëw neexal làmb ci mais làmb la joo xam ne ji nag dañ koy dañ làmb ju ñuy rëbb la maanaam làmb la joo loo xam ne ji làmb ju ju ju ju ànd ak xel ak xalaat la dañu indi engouement ci combat bi a sant pour cent ba fàtte komba bi soo ñëwee it la nga war def ci combat bi yëpp nang la na la war muy Papa Sow bu ñëwee itam na jàpp ne euh, xale lay bëree la xale bi muy bëri itam comme ni ko Maxi waxee xale la boo xam ne bii xalam yépp mooy fii ténor yi nekk mu nekk fa booy seet départ ba fii mu yegg si nii attention bu liggéey doon du am loolu boo ko xoolee ci jamono bi muy dogg a ñëw mu di bëri ak ñoom naxa naxa ba fi yegg si fii da xam ne am na fu bëtam tegu moom Papa Sow nag champion la boo xam ne bi Fass la jógee dem parcelle nekk damitu Fass fii nekk damitu Pikine fële tey bu fekkee euh, kii parcelle tey bu fekkee ne yàlla daa dogal ba tey papaam nekkoon Fass baan bu mag ba boo xam ne bii ñëpp xam nañ ko ndax moo ñu ñëpp Fass lañu tey bu déplacé wu xëy na ay bokk dëkkandoo ak am di jàmm ak yooyu xëy na mën nañu ko koy mais ba léegi moom bu sañoon papaam moom Fass lay nekk. Mm-hmm. kon ci wàll yi nga xam ne bii ndaanaan gi mu jëlee Fass jàng ko ba mën ko ba xam ko fa. jàpp naa ne buy ñëw ànd ak ñu ko war a àndal ci biir Parcelles di ñu koy gën a mooy comme ni ko Max waxee victoire lañ koy wutloo ki nga xam ne kii mooy Siteu itam moom dernière sortie yi mu def boo gis benn bi def dóor mu daanu beneen bi ci des moom contre gi la gis nga dafa bëre bay si ci guy gi bëre ba tàggaloo ñu naan ki leeg nga ñëw ci la ñu am mbootu colal Siteu jiitu ñëw ñu jox kenn ndam loolu it mën na nekk ci làmb parce que làmb nag ah, mbër ah, vraiment du daanu jaaxan nga la kañ ba jaaxaan de boo ko defee rek boo ak ñu dóor la nga daanu demal nga defar ci waat mm-hmm. parce que ci combat yi nga xam ne ñoom la ñuy jàpp ne moom ngay moom ngay bëree moom Siteu dañ lay dañ lay wax ne dañ la war a ci fital mm-hmm. nga fit wala ñu séntu la ci fit nga ñëw fital Papa Sow it loolu mooy moom la war a ba nga xam ne ñoom ñaar man moom du ma ci du ma du ma lay naax dama lay dem rek man ñun bàll yi lañ dëkk caaro lañ dëkk ak Pikine jëm noonu du mag si mii tax sax may di ko wax mais ñun yàlla dogal ñun fu ñu dëkk nag suñu fierté bon bu ñu sañoon drapeau bi. du génn romb rombul Pikine jëm caaro yi. d'accord man damay ñaan yàlla Siteu daan ci kàttanu yàlla. Père Max suñu war a amal face à face euh, jeudi bi diggante Tapha Tine ak Boy Niang ñu war a amal tamit seen combat bi le 19 décembre. o face à bi wax nga dëgg jeudi la ci Ibamar diggante Tapha Tine Boy Niang coow li bëri na te nag bu ñu jàkkaarloo bii mu doon une premier bu ñu tàkkaarloo ñoom ñaar jëkk nañ ko def mu avorté ca cosaan mu am xeex ñu toj fa ay oto coow li bëri xam nga waa Pikine nag seen i bagage bi ñuy ñëw fekk ñii di leen xaar ñu sànnantee xeer xam nga Pikine da cee am xale yoo xam ne seen ginnaaw daa xaw a tàng mm-hmm. te bool bool yi dañuy dañuy bañ ay bañkat lañu mm-hmm. ñu xeex coow la bëri moo tax promoteur bi sax jéggalu ñooñu dëkkal ñu dëkk foofu fi ñu ko doon defee ne maa ngi jéggalu li taxum kii bi ci des la mu nar a te gisuma fa service d'ordre xam nga séeréer si ñoom buñ dee tëgg làmboo am na genn leket bu ñuy def seeni bagage gis nga buñ ko wisee histoire du am mën nañoo tëgg làmb mu jeex benn alkaat du fa nekk ne combat Tyson 2 ak assurance ca euh, Fatick mm. bëre dóor la dëgg la ministre Matar Ba bi ñu ko woowee ne ko amul alkaati damay waaye dem leen dem leen dem leen ah foofu foofu du am histoire ñu tëgg làmb ja ba mu jeex histoire amu ko loolu daa mën a am fii déedéet làmb ba mu jeex laa la wax amul ah, service d'ordre licence d'assurance jeex na dara amu fa kon ñoom cosaan am mhm. bi ñu ko defee ma ne lii wóoratul na tafaatin wax dem ba pare booy ñaa wax dem mhm. tafaatin wax dem booy ñaa ñëw wax dem pour éviter histoire parce que ci biir gala lañ ko def mu am bëre simple mu am bu ñu fa teg bu bu signature bi yàqoon gala ba séeréer si booy xam nañu def kuy ñibbi da ngay yenu sees yóbbu ndax danga sama billet duma ko perte mhm. ma xam ne risque yooyu bëgguma mu dal le promoteur mhm. bëgguma mu tëgg di perte moo tax ma ne na tafaatin dem bu paree booy ñaa dem mhm. keroog noonu lañ def bu mujj bi ñu def ko ci TFM bu tafaatin moo ne ci plateau bi booy ñaa ne France ñu jël ko appel vidéo bii nag c'est la mooy premier fois bu ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar ak yeneen juróom-ñeenti combat yi ci war a am yépp Tidiane Faye day daje ni Yékini Junior euh, ku ci mel ni Tanor day daje ak Santan fils de Max day daje ak Servo euh, Les Junior wala daje ak fils de Badlem maanaam combat yi bëri loolu lañ koy toppee ba mu mat fukki combat yëpp a fay dajaloo moom entrepayante nag entre bi mille francs la. mooy face à face c'est juste pour segg ñu war a dugg mais promoteur bi ci xaalis combat bu def ay centaine de millions. deux mille francs witoo ci xaalis. mais dañu bëgg a segg rek. Mhm. ñi nga xam ne signature bi ñor na leen ñu ñëw tugg toog même bu kenn ñëwul sax ñu def ko noonu ci vide. Mhm. ku ne wax ñu dem mais buñ daggee billet toog waxtaane ko ñi bëgg làmb dañuy segg public bi mhm. moo waral mu def ko entreprenariat. loolu nag c'est à saluer. waaye seen combat ñoom ñaar ñii dañ ne Tapha Tine dàq xeex ma ne d'accorduma ñii ne Boy Niang dàq xeex ma ne d'accorduma Tapha Tine mën naa xeex mën naa bëre booy Niang mën naa xeex mën naa bëre booy Niang li ëpp ci xeex ñim dajeel même boo ëppee loo sànni ay korpeño moo ëpp lu muy dal loolu bagarreur da koy def Tapha Tine nag ndax mën naa xeex moom mooy géej gi am na ndox gis nga ni mu def Elton gis nga ni mu def Bombardier ci biir bëre bi it Tapha Tine daa mën a bëree dala daan bàyyi ba nga surux ba gàdd ko mu dogo bëri ci nga dim def Yékini ci ñoor gis nga ni mu def Boy Sey gis nga ni mu def Cek kon ku ku mën a bëri la. Abdou Diouf booy ak Abdou Diouf booy ñaan ak c'est un fin technicien. moom dafa mën a bëri. kon moo lay wan ne boo xamante ne nii ku la ko yombalal moo la ko xañ combat boo xamante ni di yomb. kuñ ci na man dañ lay nax booy ñaa am na lu ne ci xelam dafa jël tafaatin ñu ne ko yow tafaatin diis na mu dolli ci Balla Gaye ñu ne ko waa yow xanaa dangaa xeeb tafaatin mu ne mu amoon beneen combat jël ko ndax samay papa dañ daan tegale ko avance yu bëree bëri ndax boo toog wala samedi bu ko yaa ngi perte kon combat la boo xamante ne nii du yomb combat bu metti lay doon euh, waaye nag tafaati nit wax naa ko léegi daan na sos daan Yékini senior daan guy gi tegale leen ci benn saison waaye ba léegi mënuñu ko bàlli ko Ama Baldé daan Ama Baldé booy ñaari seexam ñoom ñaar yëpp ñu waree Pikine moo tax mu fonk lom combat bi bawal na ko nag na ko yaa yor couleur bawal booy ñaa yaa ngi dégg mooy leen sàmbe laa dëkk ñu ne ko noo xanaa tey nga bëgg doon bawal bool kon te wax na dëgg ndax papaam bawal la dëkk mais daal combat la boo xamante nii. même ci émission yi boo ne boo ñaa bool la dëkk ñu ne non daam bool original bool bool original. kii bool bool waaye nag moom Thiès la waree moom moom Pikine la waree moom. moom moom ko ñor muy muy Abdou Bakhoum. d'accord mais daal pour gàttal laal yaa combat boo xamante ne nii du yomb su dàqul ci combat bokk na ci combat yi dàq ci saison bi. booy ñaata Fatine le 19 décembre. père nga rebondir foofu diggante Boy Niang ak Tapha Tine. waaw combat la boo xam ne bii ñoom ñaar jàpp na dina am xeex te euh, corps à corps boo ko déggee mooy goos gauche droite droite. doorante. loolu mooy corps à corps loolu xeex la corps à corps parce que ñun bi nga xamee ne dañu takk gan sax dañuy wax corps à corps mooy xeex leen donc. jàppanteek mbën nag ngemb loolu surface la surface boo xam ne bii yaa xam da ngay potoxlu ko ni Papa Sow di def jaar ci flanc walla nga euh, faaxat ñu bañ nga tibb tànk wala nga takk takk ba mu dëgër war a def nag lu tax nga am ndam donc ci loolu daal moo yaakaar ne am na yaakaar ne am na ci ñoo xam ne bii corps à corps bi moo leen di arrangé. am na ñoo xam ne itam surface boo leen moo di arrangé. parce que bu fekkee ne ku mel ni Tapha Tine la normalement ci yoon da ngay gis ne jàppante yi muy jàppante yëpp li mu gën a mën ci bëreem benn yoon laa ko mës a gis mu def ko xëy na su ma juumul ba ñaari yoon muy jàppante yow roof la ca xawal bitar ñi la. mais day penk am na penk. parce que ci bi mu bëri Yékini Junior bi ñu dawee la gàtt dawee romb dama leen na attention tafatin mbootkat la tey Yékini junior mi masse bi bal euh, tafaatin yor ni li muy mën a jéem a def mooy jéem a jar ci flamme bu ko capté ci diggante mën na ko gàll mboot ñu ma loo ki mën na ko non tafatin mbootkat la tey bëre boo seet foofu la jaar mu gàll ko mboot daan ko jële bu rëy rëy boo ñaan nag comme ni ci euh, Maxi wax dëgg la ñun suñu doom la ñoo koy takk ñoo koy ñoo ñu suñu kanam lay takke war ñëw ñu indi ko ci làmba ji di ko ñaanal ndam ci kàttanu yàlla ci bis ba waaye bis la boo xam ne moom itam na fonk bis bu baax a baax à cent pour cent parce que li si wax léegi dafa am solo bawal buñ la takkee ànd ak yow sànq la indi la nga jaar fi nga war a jaar ndax wax na ko dëgg parce que man bawal bawal la à cent pour cent ngoy Aliou si la dëkk seen diggante ak su diggante c'est des kilomètres yu xaw a yu jegeñale waaye daal gis naa ne ci nga xam ne lii moom la euh, boo ñaaw wax ne Sambe la dëkk Sambe boo xamul Sambe moo ngi ci ginnaaw Jurbel tuuti diggante mag Pataar diggante bi soreewulu am na dëkk boo de ci ginnaaw Bam Jurbel Pataar mm-hmm. Sambe moo lay fett sa côté droite d'accord moom yaayam dëkk Thiès kon moom moom bu ko neexee ne moom bokk na ci Kajoor bokk na ci Bawol moom boo ñëwaat kon ci wàll yi nga xam ne bii daal moom la ñuy ñaan ci kàttanu yàlla bis ba ci kàttanu yàlla ñoom ñëpp dara bañ leen a dal ñoom ñëpp ñu wér am jàmm ñëw ci yar ak ngor ak teggin bëri ci yoon di ñaan yàlla nag sunu borom tabaraka taala victoire bi ñëw bi d' accord père bu ñu fa jógee dañ lay laaj coow loolu nga xamante ni jóg na fa nii sa digganteeg Lac de Guiers 2 parce que bu muy wax ñëpp yaakaaroon nañ xaan la doon waxal mhm. mais finalement yow la doon waxal lan moo leen boole yéen ñaar non man moom bu xoolee rek war naa xam ne lu ma dépassé kenn ci waxtaanu waxtaanu làmb mhm. moom du sama morom du ma moromam la mooy mbër la man manager la jaar nañ ci làmb fooy nañu ko doon benn farit am naa droit nag sama mbër képp koo xam ne ki wan nga ko lu tax mu war a bëri yow su ne bëgg naa ko dama cay taxaw la preuve mooy awma lenn lu ma mën a wan ne war ñu bari ñoom ñaar parce que waajuru moom waajuru Ama Balde muy Falaye Balde mu ngi ci dëgg maa ngi ci fenn moo ma ne ma kuddud waa Pikine doo doomi Double Less ci day bëre yow Maxime Bergane yi département Pikine la dëkk seen écrit département Pikine la bokk ma bokk ñu di bokk département Pikine mais dañuy bëre kon bu fekkee ne ñun bokkuñu ak moom écrit moom mbokkoo gi muy mbokkoo ne loolu lay bokkoo ak Fallaye wala moom bokkoo fii Fallaye Balde gaañoo tegu fa tànkam kenn gisu ko fa. dëj bi ba tey. amul kenn mu du ah, mu waxuma yaayam waxuma ko. xanaa booy jaale ji fekk ko fa borom kër ga dañ fa fekk soxnaam yaayam waxuma ko am waxuma ko kenn waxuma ko mënoo faa dugg di jaale si ña fa la preuve mooy Modou Lo mii di bëre ak Ama Baldé sax ñëw na jaale si fa Ama Baldé passage maa koy nuyu bu baax baax. donc Lac de Guiers ñëwagul. ba tey Lac teguma fa bët gisuma koo teg bët man foofu. mais baaxum lan mooy problème bi est-ce que du yow li nga ne dañoo war a bëre est-ce que du loolu moo waral affaire bi. waaw mais bu fekkee daa bëgg a bëre fii ak mi ngi dund moom du ñu bon ñu ne ndénkaan la ci góor gee ko waxoon yow nga ne li góor gi wax tudd ko ci góor gi ñan la cité woon ne Ama euh, du bëreeg ñoom. xam nga mu ngi cité deux personnes muy si Balde ak ak euh, nommé euh, Pape. Fallaye non non non si Balde ak Ibou fay Ibou Faye nee na ñooñu dañu koy jàppale. moo xam seen diggante ñoom. Lac de Guiers moom moom Lac de Guiers nee na ma boo boo xanaa su ma ko nee Zil Balde ak Ibou Faye. la pro mas nañoo wax ci loolu sax Jules euh, Ibou Faye ne ma Jules Ba am Ba rek bu rek Lac de Guiers Lac de Guiers na koo daan xaj na loolu la jàppoon moom Ibou Faye wax loolu. Mm. mais ñun xooluñu ci loolu dañuy jàpp ne adversaire bi nga xam ne bii moom la ama tuddoon ci bu muy bëre claf bi yóbbaale ko ci loolu moo doon bi mu jëlee claf bi daf ne bàyyi mu fi Modou Lô bàyyi mu fi Lac de Guiers bàyyi mu fa Gris Bordeaux mm. seen combat ñoom ñaar. li tax Modou Lo xañ na bëri jëkk am Ama Baldé en tant que roi des arènes parce que attention Modou Lo dafa bëreeg Lac de Guiers ñaari yoon bëreeg Eumeu seen ñaari yoon bëreeg Bombardier euh, Balla Gaye ñaari yoon mm-hmm. bëreeg Gris Bordeaux ñaari yoon mm-hmm. bëreeg Bombardier benn yoon dootuma bëreeg moom ñu ne ko fi des mu ne ko tafaatin moo fi des ak Ama Baldé mu ne ko mu ne leen nañu ma jox Tafatine ñu ne ko Tafatine Ama Baldé ko daan mm-hmm. la ma boole maag Eumeu Sène ak Modou Lo donc ci wàllu woowu moom bu fekkee ne xelam daa bëgg a bëreeg ama ñun ko sax man damaa soxla damaa soxla soxla de guerre. ah d'accord soxlaatuma ko la preuve mooy moom en personne mbër yëpp am nañu combat moom amul combat kenn soxlawul combat am kenn soxlawul combat kan mu soxla ko la bëri balla la de guerre <laughs> ku koy soxla amul ñu sens. amul sens. Ah, combat yëpp promoteur bu ñëwoon tëgg làmb jooju yow doo doo ci am. non yooyu ay itam. loolu sax da ngaa mer di defante mais problème mooy. <laughs> ama laa bëgg xam ñu ngi fi bàyyi. ñu ngi fi bàyyi daal Maxi Bergan. Mm-hmm. papa ma ngi ci dëgg maa ngi ciy fenn. Mm-hmm. waa Pikine. un deuxième fois li Balla Gaye la de euh, dubale jur muy saa Thiès ak Balla Gaye ñooñu la fi Ama bàyyi ñooñu la fi bàyyi. mais ñi ci des waajur ci ndigali waajuram mi nga xam ne maa koy fekkee bu subaa. waaw ah, loolu leer na. loolu leer na beneen bi euh, le vingt cinq décembre nga waroon a bëre ak Modou Lo tey le promoteur ma dégg ne dafa collaborer ak jamay Jamaïcain mm. euh, ñu tëgg xoyantaan ak Baye Mandione làmb ji waroon a am Gambie. ñu dem ba dernière minute. ci dagg wee wala doo dagg wee bàyyi ma njoon ne fii lu ñuy dagg wee amu ci ndax amul ay we làmb ja yàqu ñu yëkkati loxo xoyantaan te wuli daje woon ceek euh, liiru jaan euh, revanche bi mu indi ko fii kon bi yoon xoyantaan mooy jóge Gambie di roi des arènes Gambie fekk si bàyyi ma njoon moo moo waree caaro yi waaye représenté senegal yëpp. Mhm. Ligue de da ciy mujj def face à face def face ba pare Core Production ndax moom moo jëloon date bi mais date bi da koo maintenir ànd ci ak Jamaïcain moom lig indi cinq combats préliminaires Jamaïcain indi quatre combats ak grand combat bi mu tëgg xoyantaan ak ma Mandione mais ngeen def ci face to face yéen ndax yéen a ngi waajal face to face bi wala fan ngeen toll yaag sa mbër waaw de passage di nuyu Baye Mandione bu baax a baax ndax kii fi nekk roi de arènes ba kii Dembo daan jël bu rëy mhm. caterpillar kon déedéet déedéet déedéet déedéet baal sa loolu ma njoon nee na moo daan mais ci règlement moo loolu lañ jox ko baa bi bi dee recours ba tey dañoo baa yow ba léegi yaa ah. <laughs> donc kon xoyantaan bu jógee Gambie Gambie traversé Sénégal Gambie ne ci biir xolu Sénégal jéggi bag bi ñëw wala bu dugg saxaar wala mu jaar Tamba ñëw mm-hmm. di Gambien dañuy ñaan ci borom tabarakal du tubaab des Sénégal. Mm-hmm. ñun Sénégal la am bu ñu sañoon Sénégal lay gën fépp. Mm-hmm. ci face à face bi ci bi. muy diggante ñoom ñi ñaar yi nga xam ne promoteur bi ne ñoom ñaar man day contrat bi ma yoon mars. Mm-hmm. le vingt cinq décembre xam ne la ma ci convoqué. kaay bëri si. waaw kon waa ak lii daw presse baa ngi koy relayer ñu ngi ciy waxtaan. sport yi sax am na ñu koy def même le promoteur bi ciy organisé. mi ngi naan Baye Mandione xoyantaan ak yeneen neuf combats face à face. dina ci am Modou Lo jàpp ni combat bi mars la aussi. ba pare ne combat le treize mars la. léegi lan la ciy wax mais loolu. xanaa yow kenn woowu la ci. kenn woowu ma ci bala woowu ma ci. la preuve mbër mi woon na ma ne ma contrat ci nekk mën na le vingt cinq décembre. mu la ñu waxoon ñu bëree mu ne ma waa mu coupé téléphone moom Ama. man yoruma contrat pour bëri si pour def si signature contrat abonnement bu ñu ni wax abonnement yoruma ko contrat bëri laa yor. làmb nag mën nañoo ko dàq ci nii baa nga dàq ko ci nële. Covid bi bu mu ñëwee ñoom dañ ne nangam ak nangam mais bi ko laay delloo service euh, impôt euh, comment ça s'appelle. CNG de lutte ñaan ñu reporté làmb ji jàpp nañ ne ñoom. mën nañ koo reporter nangul lañ ko ko mais li ba muy dem man moowuma la preuve mooy CNG wooguma ba léegi dama contrat bi changé nañu ko. waaw loolu loolu est-ce que CNG am na ci droit. waaw loolu problème bi nag parce que man itam ñi yebuma ma ko CNG parce que mu jox ma contrat boo xam ne la le 25 décembre la sama mbër ñëwul changé wuñu ko sama mbër ñëw ci bés baa bu boobaa dañu may woo ma fu sa mbër nekk ñëwul la dal. booy grand yox bi nu mu tëddee. mobile mobile. Mhm. bu boobaa mën na ma dal. Mhm. parce que sama mbër ñëwul. aj ko ajaale pour kii la comme euh, kii ménager ba ñu noonu muy fàllu sëñ fàllu mhm. ñëwul ménager bi ñu ne ko signé na dina ñëw mu ne du ma signé du ma ñëw ñu aj ko ajaale mbër ma kon ci wàll yi nga xam ne daal loolu laa xam ne moom laa jàppagun ba ba ba ba ba ba muy am lu ko dindi ci stade bi wala am lu ko dindi au niveau de CNG le vingt cinq décembre laa yore kon daal yow ba léegi le vingt cinq décembre waxu face to face ci mbedd mi nga ko déggee. fii ba fii ma lay wax. ak treize te sa contrat bi nga yor muy sa mbër le vingt cinq décembre li nga ci am mooy ñëw bëri si. loolu wér. non non mais loolu doy na waar quoi. parce que li bu dul loolu. war nañ la woo. ba pare ñu jox ko datu le treize mars. te dat bi ñoom aussi yëguñu ko. te dara officiel gu ci. moom nag muy véhiculer message am ne nàngam ji laay def la le treize mars loolu CNG foté na <laughs> kon daal su ma juumul le vingt cinq décembre yéen ñoom waaju leen ci face à li ngeen jàppagum mooy da ngeen war a bëri si. waaye waaye Max daxuma la jàng xam nga li ci këyit c'est pas la première fois nga signé contrat ay mbër yu mag nga jaar ci làmb ba yegg ci fii nga toll. kenn mënu la cee nax. waaye ñun jàpp nañu itam ci kàttanu yàlla liy tënku ci ay këyit tënkuñu ñun dañu ko remplir mooy le décembre moom laa amagum. jour ba su pas de de preuve xamaguma lu koy changé gun gisaguma lu ko changé ba ba ñu may woo promoteur bi toog ñu toog xëy na nag ñoom woote boobu paasee gul xaw ndax pour euh, président bi mën naa woote benn ndax it dox ci ay tànk ñoom ñaar muy promoteur bi ak CNG tànk yooyu ñuy dox noonu promoteur bi am na droit. sensé non da ngaa rafetal mais yow da ngaa nekk ci problème bi bi amee ñu mébét ko war nañ la woo yow. leer woo kat promoteur vingt cinq bi arrangé wu kenn woowu ma ñun ñi ngi waxtaan wa wan na nag indi na calendrier li ko changé ne la treize la soxla mais ñun ñi ngi waxtaan mais dara sotteegul ndax buy sotti yéen yéen a koy sottal def ko ci seen bopp ngeen xam ko mais promoteur mënul ñëw ñu jox ko le treize mars moom muy publicité ne face to face la ciy def te yéen les concernés kenn saisiru leen waxtaan ak yéen loolu jaaduwul ah ñoom dañoo ma defar contrat ñoom CNG. Mhm. ma signé. Mhm. Ndiame signé. promoteur bi signé. sama adversaire manager am signé. biram ñu kii euh, quoi waaw. c'est ACC ACC. donc quatre signatures yooyu ñoo fa nekk. donc man jusqu'à preuve du compte. ACC boo ko laajoon ba léegi tey lu muy mu xam li ma dal moo ko dal kenn woo ko na ko naan ma ngaa contrat moom ma ngaa contrat le 25 kenn woo le 25 décembre loolu dinañ ko topp soo ko woo fii ñu toog njàkkaarloo dana la wax li mu wax te dara ko dindi dinañ ko topp ñu bàyyi la nga tàggatoo comme waxtu bi mi ngi ñuy bëgg a xoj <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf soxna si mm-hmm. euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sama xarit sama doomi ndey Maxime mm-hmm. Bergane euh, di ko xam ne kii nag euh, vraiment def nañu lu nekk jaar nañu fu nekk dara mësul ñaaw muy koo xam ne kii ci sport rek la du wax ci làmb lay waxtaan fu ñu gisante ci waxtaan ci làmb la ñuy waxtaan dañuy waxtaan nag suñu mbirum àddunaak yooyu ndax fu ñu jaar bari na en jeunesse bëri woonoo mbappat bëri noo àndandoo daje fu nekk dem ba bokk benn écrit sax muy koo xam ne kii euh, ku baax la ku baax la koo xam ne kii euh, fu mu nekk rek nit ñi mën nañ ko fa fekk parce que ci comportement ak rafetal gi mën naa ma damay rafetal moom mii toujours loolu laa koy wax dama ko naan ma dellu wax li nga xam ne ki mu ne ma noo man ji mënuma mëneewu ma noonu bàyyi man ñi ci nii rek ma ne ko li wër mooy mooy rafetal bi am na solo lool ndax itam mbir moom day munu ñàkk sax dikkile waaye am na ci yoo xam ne yi il faut ñu ciy teg ndawal d'accord ñu ciy teg ndawal mm. comme yàlla dogal na ñun ñëpp benn lañu te moom sama xarit la heure bu ma soxla wala yaa soxla moom ku mën a doon ci kàttanu ci Sénégal rek la ñu yemale. di ñaan ak Sénégal fii nii place bi toog sama borom dem ngeen am doole. ba émettre ci àdduna bi yëpp. ba mm-hmm. ci adduna yëpp xam leen ngeen gis comme yeneen télévision yi fi nekkoon. amiin di leen ñaanal taw xam nga xam naa nag loo dafa mel dañ ko résumé romb est-ce que li Modou loo ne xëy na bëggaatul Lac de Guiers dañuy xëccoo combat royal diggante Ama loolu beneen waxtaan waaw permanence loolu dañ ciy revenir <laughs> ndax loolu débat émission la boobu émission la loolu ñu def taan waxtaan boobu la ñu bàyyi la nga <laughs> mais euh, di kontaan nag <laughs> lu ci rafet borom bi la lu ci ñaaw jaam yu bu ñoo bëggoon mu rafet hmm. mais di ma jox nekk di jox nit ñi rendez-vous dimanche ak Gaston Production hmm. diggante Pakala ak Forza retour de Zos ak Alim Seyde Santa Ñing ak Wës Jàmbaar ko dimanche la ci arène nationale ñu ànd ak Gaston production yeneen combat yi waxtaan nañ ko léegi bu gënee jege dinañ ko gën a yaatal mais daal loo ci mënti dégg looloo xew ci weekend bi mais jeudi nag bu leen tardé face to face booy ñaar Tapha Tine li tax face to am solo am na ndaaraan yoo xam ne bu ñaari mbëri taxawee wax ñu xool leen rek bu ñëla di daan dara du ko dindi yàlla may na leen boobu xam-xam kon rendez-vous bu jeudi lay euh, kontaan ci bokk ak yow émission mm. ñu ngi leen di jox rendez-vous yeneen jataay ñàkk jërëjëf. ñu ngi leen di jaajëfal internet Sénégal 7 di leen jox rendez-vous lundi prochain dans émission maximum de lamb avec Père Max et d'autres invités le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.sénégal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal